أيها المؤمنون اتقوا ربكم حق تقاته واعلموا أنها العروة الوثقى وسبيل المنجاة فمن تعلق بها وسار في جادتها بلغه الله مأمنه وأدرك في الدارين مؤنته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم اعملوا ثم اعلموا رحمكم الله أنه أظلكم أيام عظيم وليالي جليل أقسم الله عز وجل بها إعظاما, إعظاما لشأنه وتنويها بمقامه فقال صلى الله فقال عز من فقال سبحانه وتعالى ويذكر ويذكر اسم الله في أيام معلومات ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته doomu ndey ñu ngi ci fan yoo xam ne ay fan yu ñuy yu tedd la muy fukki fan yi nga xamee ni dañ ci muy fukki fanu aji doomu ndey ñu xam ne fukki fan yi nag ah ay ngineelam bari na yàlla subhaanahu wa taala comme niñ ko déggee léegi ci xutba bi ginnaaw bañ sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu wa sallam seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci kaw dëgg jaamu gi di jëriñ ko ñàkk jaamu gi di lor ku dul borom bi subhanahu wa taala ñuy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy seede tamit képp koo xam ne borom bi subhanahu wa taala jubal na la kenn mënu laa réer waaye képp koo xamee ni borom bi subhanahu wa taala bàyyi na la ci coobarem ba nga réer kenn mënu laa jubal doomu ndey ñi dañu xam ne nag dañu nekk ci fan yoo xam ne yàlla subhaanahu wa taala moo wax ci aaya xam ne mu ngi ci suuratul xaj wa yadkuru smallahi fi ayaamin maalumaat boroom xam-xam yi bañ ne di tafsir di bi dañ ne de fukki maanaam yàlla subhaanahu wa taala tudd ci fan yi nga xamee ni ay fan ñu xam la boroom xam-xam ne nee nañ fan yi nga xam ne mooy fay ay ayaam maalumaat mooy fukki fan yi nga xamee ni ñoo jiitu ci ci weeru aj sopp nañ ci nag nga bëri looy tudd borom bi subhaanahu wa taala ñëw na ci xadis ibnu umar radiallahu taala anhuma mu ngi ci musnad imam ahmad muy nettali mu ne fa aksiru fihinna min altaxlili waltakbiri waltaxmid buxaari rahimahullahu taala ne bokkoon na ci jëfu abu hurayra radiallahu taala ak ibnu umar radiyallahu taala anhuma ñoom ñaari saxaaba yu màgg ñooñu nga xam ne kàngam lañ ci biiru kàngamu saxaaba yi daan nañ génn ci bis yi di tudd yàlla allahu akbar di màggal borom bi subhanahu wa di ko tudd di kàbbar bu ñu génnoon dañuy ñëw kàbbar ñu kàbbaree macha allahu taala képp ku dégg seen kàbbar topp ci seen ginnaaw di kàbbar ndeysaan muy sunna boo xam ne sunna gu réer la ci suñu jamono ji yàlla nañ yàlla may ñu delloo ci sunna boobu waaye nag ban façon lañuy ñuy wala ban siixa sifa bi nga xamee ni mooy kàbbar li nga xamee ni mooy lu wër jële nañ ko ci ñoom muy abu hurayra mi tudd léegi ak ibnu omar radiallahu taala anhuma daan nañ kàbbar ci façon yi maanaam ay façon la façon bu njëkk bi nga ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira bii façon nag Bayhaqi nettali na ko ci fadailul amal tamit muy benn ci façon maanaam allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira façon bii de رواه البيهقي في الكبرى في فضائل الأعمال من طريق عبد الرزاق بن معمر عن عاصم ابن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يقبل فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر kon nag façon bi nga xamee ni moom lañ wax léegi muy allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira nettali nañ ne de salmaanul farisi radiallahu taala anhu daan na waxee façon bi te nag ci isnaad bu wër la ndax xaafis ibnu xajar wëral na ko ci fathul baari ci tome 2 page 462 am tamit beneen façon façon boobu mooy allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ma sha allah lii tamit façon la boo xamee ni روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن أبي عن أبي الأعرص عن أبي إسحاق عن أسود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من نحر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد kon ñetti façon wala ñaar bii mooy deuxième façon bi ñu am tamit beneen façon mooy troisième façon bi allahu akbar kabira allahu akbar kabira allahu akbar wa ajal allahu akbar wa lillahi alhamd ñu tamit beneen façon la ci façon yi nga xamee ni wër nañu saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim nii lañ doon kàbbare kon kàbbar gi nga xamee ni soxla nañ ko ci fukki fan yi ñaar la dafa am boo xam ne bu ñu boyal la waxtoom dañuy jàpp ni mu ngi commencé ci bisu bu bisu fukki fan yi nga xamee ni ñoo njëkk ci weeru ak am nag yoo xame ni lu ñu tënk la maanaam kabar gi bu njëkk bi ku ñu boyal la <coughs> boobu ñaare ñi nga xamee ni yàlla def na aju ñoom ñoo koy faral di kàbbare ñi xamee ni yàlla def na ñu ngi aj ñoom ci seen aj la ñuy nekk ñi nga xam ne dañuy aj nag am na boo xam ne tamit bu ñu tënk la boobu muy daal di commencé ci bisu arafa comme niñ ko waxee léegi في رواية ابن مسعود daanaka maanaam bu bisu arafa jeexee salaatu bisu julli bu commencé bis tamit ñi nga xamee ni ñooy faral di nekk Mina ñoom tamit ci kàbbar yi dañuy kàbbar ci ñetti fan yooyu comme ni ko borom subhanahu wa taala ci aaya bi kon doomu ndey façon kàbbaar gi ñu soxla ci fan yi nga xamee ni muy fanu fukki fan yi jiitu ci at yi ñii ñetti façon la façon bu njëkk bi allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira beneen façon bi allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd yi mooy beneen façon ñaareel façon ñetteelu façon bi allahu akbar kabira allahu akbar kabira allahu akbar wa ajal allahu akbar wa lillahi alhamd kon doomu ndey ñetti façon kàbbaar yii de lañu xam ne ñetti kàbbaar yii de lañu gis ne saxaaba yi ci ay isnaad yu wër daan nañ ko kàbbaaree am na nag yeneen façon ci ay kàbbaar waaye wax dëgg fa yàlla ñett yii de laa gis ci seeni isnaad ne saxaabatul kiram ridwanullahi taala alayhim daan nañ ko jëfee kon doomu ndey bis yaa ngoog màggaayu bis yaa ngoog comme ni ñu xamee ni muy bisu fukki fan yi jiitu ci weeru aj muy fan yi tedd nañ ci bëril di kàbbaar nañ ci bëril di jéggalu suñuy bàkkaar nañ ci dundalaat sunna mooy ban sunna di kàbbar ci bépp place boo xam ne yaa nga fa fépp foo mënta toll rek del kàbbar amaana ay nit yoo xamee ni seen xel génnoon na ci bu déggee sa kàbbar gi insha allahu taala ñu kàbbar ànd yow waaye nag toujours li ñu wax la nga boole ko xikma na ko boole xikma muy yar ak teggin bañ tamit kookali kenn bañ a tamit déranger ñoo xam ne ni lii de boo ko defee seen kanam de leen di déranger kon doomu ndey yi comme niñ ko faral comme niñ koy faral di waxee lii lañ lii lañ ñu cërale woon ci waxtu ñun ñi nga xamee ni fii ci Riyad di jëflante suñu mbokk yi nekk ci Islam House mu site internet boo xam ne bu xam la lii lañ ñu cërale woon ci waxtu lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu jub ci borom bi subhanahu wa taala lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu dëng ci borom bi euh, ci kii jottali la ci doomu aadama ndax doomu aadama moom matul kon ñu xam ne nag tem waxtaan bi nga xam ne moom lañ doon def mooy façon kàbbaar yi nga xamee ni moom la ñuy kàbbaar ci fukki fan yi nga xamee ni mooy fukki fanu ak ak ñetti fan yi nga xamee ni dañ ciy topp muy ci ñi waral ñi nga xamee ni dañoo ak kon doomu ndey yàlla nañ yàlla may dégg ak topp lépp yàlla nañ yàlla may buñ yàlla nañ yàlla may dégg ak topp nañ yàlla may boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy dundalaat ay sunna yoo xam ne ay sunna yu ñu fàttali la ay sunna yu ñu la wala ay sunna yoo xamee ni yu ñu bàyyi la yu ñu abandonné la wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi